salaamaaleykum merci président monsieur le madame le ministre de la justice monsieur le ministre du travail et vos collaborateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu collègues députés yëpp xam naa sama mbaxana bi moom tey xaw naa jaaxal gars yi nee leen ma summi ko ma lànk parce que buñ fi dugalee loi d'amnistie boo xam ne waru fee dugg kenn waru maa summiloo sama mbaxana ma koy nangu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 boo xam ni euh, commission d'enquête parlementaire boo xam ni tey dinaa xool yéen lan moo tax yéen ngeen dugal loi d'amnistie da ngeen di baale mais ñun duñ ay dof sénégalais gis nga ay ay nit njaay lanu bàyyi leen seen yi ngeen di def am na loo xam ni c'est pas sérieux c'est pas honnête mënuñoo rey ay nit ba pare ñu xëy tey jii ni nangam man bi may ñëw laa jot yóbbante la président du parti Serigne Moustapha si na leer mu ni loi bii bu ko kenn voté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 kuy seet ku dul woor jàppal ci waa PUR te lépp lu ngeen fi def fii bu àll yi Aliou Mamadou Dia ñëwee nekk cinquième président dina ko dajj ba mu seet bu soobee yàlla je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Ndialou Bathily suivi de Malick Kébé. asalaamaaleykum merci président maa ngi nuyu sama collègue député yëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi nuyu tamit madame le ministre de la justice di nuyu monsieur ministre ministres ak seen collaborateur di nuyu presse bi yëpp di nuyu population sénégalaise bi yëpp. xam naa tey madame le ministre dañ fi nekk dañoo ñëw pour voter li nga xamante ne moom mooy pro discuter projet de loi bi nga xamante ne mooy dellu ci wàllu amnistie bi. dafa am noo xamante ne nag dañ ko seetlu waxoon naa ko en fait on a dit le but de cette loi c'est d'apaiser le climat politique et social et aussi de renforcer la cohésion nationale mais dama jàpp ne actuellement madame la ministre li nga xamante ne moo mën a renforcer apaiser le climat politique et social c'est la tenue des élections présidentielles parce que nag loolu la nit ci di xaar te loolu la askan bi di xaar ndax dëkk bi actuellement waxu politique rek la ñuy wax te askan bi dañ see sonn moo tax tey li nga xamante ne moom lañ doon xaar si le président la république c'était pas mu ñu benn loi bu mel nii ba nga xamante ne comme ni ma koy wax loi suppu kànja la lu nekk lañ jël dëxañ si biir mais ñu organiser élection yoo xam ne le 2 avril incha allah dinañ fi teg un nouveau président de la république yàlla na nekk suñu président suñu candidat Aliou Mamadou Dia su ko defee mu mun a rétablir li nga xamante ne moom mooy paix bi ndax ñoom ñoom ñoo moom ñoo am pour def ko donc loolu su suñu yaqiin la donc paix incha allah dina am mais nañu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy ñëw mu def ko te président mu jàppal ñu suñu datu élection ñu organiser ko comme ni ñu ko bëggee beneen bi aussi ma gis ne ni ñu tëggee loi bi ñi nga xamante ne ñoo si gën a profité wax naa ko c'est les hommes parce que dañu ne sa permet ça va permettre à certaines personnes de participer pleinement à la vie démocratique de permettre à des personnes privées de leurs droits civiques et politiques d'être rétablies dans leurs droits déjà ñu perdre seen droit lan moo tax ñu perdre ko ñi ci ëpp dañ leen tooñ donc tooñ boobu ñu leen tooñ moo waral il faut ñu leeral lan moom moo tax ñooñu ñu perd seen droit ñoo ngi wax ay waxu détenu détenu yooyu foofu du seen place seen place mooy ñu génn ñi ci ëpp dañ leen tooñ dañ leen accuser de façon euh, illégale donc dañoo war a rétablir les faits ñi nga xamante ne dañ leen tuumaal ñu wane lan moo tax ñu tuumaal leen ñu setal leen ñun loolu ñu bëgg famille des victimes yi waxuñu leen tudduñu leen sax ci biir euh, euh, exposé des motifs bi te ñoom dañ ci am wàll c'est pas que rek ne dañ leen war a indemniser côté xaalis du loolu depuis événement yi bi ñu amee ñoom ñu ngi toog di xaar enquête bu war a aboutir ñu toog ba tey au lieu ñu génnee résultat enquête boobu ñu ne tey dañuy baale imaginez vous ñooñu nekk leen seen place pour xool lan la ñuy lan la ñuy biir ñi nga xamante ne ñoo ci perdre seen bakkan seen famille mënuñu def seen deuil li tax mënuñu def seen béy déy parce que dañu bëgg a xam naka la demee kan moo leen faat ba pare ñu mën a def seen dëy bu ñu defee dëy bi ba pare ñu mën a accepté ñu mën a baale loolu moom mooy dëgg ba pare